kër yu jaxaay yi di si remercier son excellence suñu bataille suñu campagne dañ doon wax bu ñu gañee son excellence dina dina joxe kër gi ñu ngi commencé joxe titre kër yi dama si insister pour remercier son excellence mais di wax ne ñi nga xam ne ñoo yore mise en œuvre bi nañ ko accélérer président mënul wax nañu joxe kër yi ñuy ralentir cadence bi on sait pourquoi nañ ko joxe gàllankoor bi si nekk te ñu remonté ñu ko moo ñi nga xam ne nekkatuñu fi dañoo génn àdduna te ñu ne pour ñu jox kayit yi seen doom il faut ñu andi certificat d'hérédité ñu jox leen ko nañu wut modalité bi l'honorable plaidoyer bi moo war a nekk nañu woo délégué de quartier ba nga xam ne xam na koñ ba xam na kër wa doomam ñëw ñu signé parce que kooku mënul jaay kër gi te amul certificat te amul titre de propriété waaye jël kayit bi denc ko kenn xamul loolu day day juraat ay yeneen yeneen phénomène na ñu joxe kayit yii difficulté yi technicien bi nañ ko régler c'est pas au président de le régler difficulté yi nañ ko régler joxe kayitu kër yi beneen bi si des mooy gis nañ Promoville dugg na fi ñu ngi xaar extension waxuma cinq kilomètres de route bitumée dañoo bëgg si partie spéciale li nga xam ne vingt kilomètres de route bitumée découpage président son excellence annoncé na ko nga xam ne ñu ngi départementalisation commune Kër Massar ñu ngi xaar concertation yi nañu xaar concertation yi pour que ñun ñu wax li nga xam ne mooy suñu xalaat si mbir mi on ne refuse le développement ñun amuñu problème nekk mbaa nekk Kër Massar waaye seulement bu ñu nekkee si loolu li ñu xaar mooy redécoupage yu jaxaay bi nañ ko defar parce que commune mënul am bu amul viabilité territoriale jaxaay dina mag nekkoon nañ douze mille am sept mille on est à cinquante mille am ñiy juddu dañoo soxla suuf fu ñu nar a dëkki fu ñu nar a def investissement ñu ngi ñaan bu ñu def redécoupage bi nañu xaal nañu xool les perspectives ñun amuñu problème diggante Kër ñun amuñu problème diggante Tivaouane Peulh amuñu problème diggante Kounoune lu ñu am mooy viabilité territoriale te dañoo soxla rester une commune et am une commune viable